leen waatal ci barakati laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi quart de finale bi ne quart de suba la lañ ma indil coupe bi tegal ma ko ci sama kaw laal ci jëlagu laal ba barakati laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi kan bi balaa maa commencé dama feebara feebara feebara feebar ba foogoon ne maa day taali ci laa tëdd bu ngeen gisee sama vidéo bi ñu wax ne gis nañ gis naa gaynde gu ñu def nii croiser bara sama loxo yi fi ma tëdd fiaba lañ ma wan gaynde goo xam ne dañ koo téye gaynde gi jàkkaarloog man ma ne allahu akbar kon coupe d'Afrique macha allah li tax ren laajuma kenn du ci gouvernement bi du keneen lu tax euh, ren laajuma leen dara parce que 2019 damaa dem ba finaal mu am ñu ma yàqal ren ma ne du ma laaj kenn dërëm ndax boo leen laajee sax dañ naan kii ah li muy wax du am moo tax ma ànd ak yàlla ay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak barke Serigne Touba ak barke Seydi Mouhamed Moustapha si daal di koy reyante rek bu may def du defati sarax kenn dootu gisati sama sarax maa ngi koy nëbb mu nekk privé loolu loolu bu ngeen gisee ma di ko def ah ndax bëgg coupe rek lii dong laa bëggul moo tax mujj gi yépp wonetuma sarax ñun ñëpp nag ñu sant yàlla julli si leen ba ñu commencer am suñu premier coupe di ñaan di am ay coupe di am di kontaan tey ni ngeen ma yére rafet na kontaan naa torop tey sagal ngeen ma bëgg ngeen ma tey laay gën a xam ne sénégalais yi bëgg nañ Selbé barki xam ne di leen bégg yéen ñëpp képp ku ma gis rek bëgg ma sa xol sedd nga ne ma mère Selbé affaire bi yow la rek déedéet du man yéen la. di leen gërëm yéen ñëpp yéen ñi ma fekk yoof commencement ba fu ma dox ba fu ma yem di sant yàlla bu baax julli si bi. di ñaan yàlla Sénégal ci barkati laa ilaha illallah muhammad rasulullah ñu dunde noonu ba am coupe du monde na seen xel dal tant que maa ngi dund incha allahu rabbi coupe d'Afrique dinaa ko reyante ba jox leen ko coupe du monde dinaa ko reyante ba jox leen ko incha allahu rabbi bii nag def naa la ma war laaju ma kenn dërëm maa jël ki sama ñàq asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi leen di ziare yéen waa àdduna bi di leen félicité tey dama demoon aéroport mais xat na xat goo xam ne mun maa egg fa li ñooy nekk waaye sama xol bi egg na foofa ndax ëmbalewu leen ne Sénégal am na victoire depuis 2019 le Sénégal jubilé gis nga yàlla rek moo wóor loolu yàlla doo du du tus ñu sant yàlla gërëma ko nag président bu leen soxor bàyyi leen iñaan wërsëgu Macky sàll la président yàgg na fee ñëw lamin Gueye nekk na fi fekke wuñ ko amul coupe Senghor ñëw amul coupe Abdou Diouf ñëw amul coupe Abdoulaye Wade ñëw amul coupe Macky Sall ñëw am coupe waaye bàyyi leen iñaan yéen lan la wërsëgu Macky la man politique de waaye moo am wërsëg pétrole génn di leen promettre incha allahu rabbi yéen waa àdduna tant que maa ngi dund incha allahu rabbi muy coupe d' ci kattan yàlla muy coupe du monde incha allahu rabbi man Selbé Ndom maa leen ko wax dinaa ci def li ma man ba ñu am ndam ndax géej gi ubbi na jën yu bari na macha allah xéewal kese la 2022 te man sama réew moom ma gënal lu ma mënti am soxlaw ma dem beneen réew fu dul màkkatal mukarama ziyaare Seydina Muhammad dem ci néegu yàlla bi subhanahu wa taala moo ma ñor lu dul laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ñoruma waaye sant yàlla sant yàlla sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba sama Serigne Xaadimu Rasul di sant Cheikh Ibra Fall macha allah léegi nag ma ñëw ci wàllu commentaire yi Selbé noppi Selbé tëjal sa gémmiñ saaga bu bon bu ne ngeen saaga ma ko man seen ndey laa seen ndey laa ndax ku ba sa ndey ci biir kër ga di saaga ndeyi jàmbur sa ndey nga saaga man taalibi Sëñ Tuubaa laa xuux daf ma dàqut tey de xanaa ñi ma doon saaga ñépp waa tey leen yéen lu ngeen wax seen bopp ndax yéen rusu da ngeen wax ne damay fen mënumaa génne ko ah tey def naa fi histoire boo xam ne du fay mukk ci àddina dama leen assuré loon ci laa ilaha illa allah muhammadu rasulullahi insha allahu rabbi coupe bi day ñëw Sénégal lu mësta am man Selbé Ndom maa ko fi indi ci sama néeg bii la jaar balaa ngeen cee jot loolu la yàlla dogal maa la ko wax man duma basé ci samay maam ay wàllu yu lañu du may ne man mii dama bokk ci xeetu wàll yu duma basé ci ne man dama am ay xeetu ceddo yoo xam ne dañ naan liy déwé na déwé na ci xew waaye damaa juddu yàlla may ma xam-xam ma yëgal leen ne sëriñ bu leen laajoon xaalis ne leen da ngeen di am coupe da leen nax yàlla may na leen coupe depuis deux mille dix-neuf barakati laa ilaha illallah muhammadu rasulullah 2019 la Sénégal jubilé man maa leen ko wax moo tax ma doon xaar am na benn bis wax naa ko Matar Ba la ministre ni ko match bu ñëwaatee di nga xam ne lépp dëgg la macha allah coupe bi ñëw coupe bi ñëw ñu jox ma ko avant quart de finale moo tax ma assuré jël sam li ma am lépp def ko ci ndax xamul naa ne damay am yéen bu ngeen seetee prédiroon naa ne leen Insha allahu rabbi dañuy jël coupe bi dañuy jël coupe bi jox ko président Macky Sall son excellence notre président de la république du Sénégal muy Macky Sall ak soxna Marième Faye Sall première dame machallah allah bu baax bi jéeg bu muñ bi jéeg bi am wërsëg ba jëkkëram nekk président tey ndam laa ngi noonu def ngeen fi jaloore de président yi yàgg nañ fi Lamine Gueye nekk na fi Senghor nekk fi Abdou Diouf nekk fi Abdoulaye Wade nekk fi Macky sàll moo ci am chance coupe bravo président macha allah macha allah li nga def woo ñëpp rafet na yal na la yàlla fay. Le voilà, la voyante Selbendom, la patriote sénégalaise. Le voilà mu ngi nii jàmbaar ji équipe nationale da ko jaral lu ne def lu ne pour notre très chère équipe jël alalam li mu am mu amul lépp xaarul kenn ngir bëgg réewam gëm réewam vraiment Vamos pela patriota. A patriota sénégalaise ku ci nekk rek wane cofeelam ak tolluwaayam ci équipe bi waaw muy rafet saa su parce que ñoo bokk li ñu bëgg ndamu Sénégal ndamu sénégalais yi ak sénégalaises yi loolu fierté Afrique la kon na ku nekk rek di wane cofeelam saa su ne kari allah depuis le début nii la nekkee ak askanam yëmbal jël ne partagé ko ñoom vraiment c'est la beauté sénégalaise. coupe incha allah dañ fiy toj. incha allah incha allahu rabbi.